walqamari ida btasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq ibadallah wa bada almawti axdaasun izaamun mutataabia yamurru biha almuminu walkaafiru walmunaafiq xatta yasila ila maswaahu alaxir aljanna aw innaar walqabru awwalu manaazili alaxira xufratu naari lilkaafiri walmunaafiq wa rawdatun lil mu'minin summa nadxu fi suur wa suur qarnun azimun iltaqamahu israfil yantaziru mata yu'mar bi nafxihi wa yowma yunfaqu fi suuri fa fazi'a man fi samaawaati wa man fi al-ardi illa man shaa allah summa nufixa fiihi uxraa fa idaa hum qiyaamun yanzuruun summa al-ba'th ibaadallah قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقال جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقومون حفاة غراة غرلا يرون الملائكة والجن يوما يجعل الولدان شيبا ثم الحشر عباد الله يجمع الله الخلائق للحساب قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم في يوم مقداره خمسين ألف سنة كأن الدنيا هم ساعة من النهار ثم الحساب عباد الله وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ثم لتسألون يومئذ عن النعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه متفق عليه mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala jaam bi dafa war fu mu mën a toll ak nu mën a nekke di sant yàlla mi boroomam ñi ngi seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu moom dong yeyoo ñu koy yaakaar moom doon dong moo yeyoo ñu koy ragal mboole mi xéewalu àdduna ak alaaxira du jóge ci kenn ku dul moom ñi ngi seede ne muhammad ndawam la woon di yonent ci ñun yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo topp ba ila yawmi diin ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni seen borom yàlla yeyoo ngeen ragal ko ko ngalawaay bu leen dee mukk lu dul yéen a ngi jébbalul seen borom bokk na ñaari xutba yiñ mu joon a def ak yéen xutba ba ci jiitu woon ñi ngi doon fàttali ana yan yoon lañ mën a jaar ba am mujj gu rafet yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet xutba bi ci topp mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci bàmmeel yi naka lañ fay dunde yal na yàlla yombal suñ dundu bàmmeel loolu nag mbokk lañ mu bëggoon a matal tey ca mooy lan moo nekk gannaaw bàmmeel ana yan jaar-jaar ñooy xaar doomu aadama yi gannaaw bàmmeel sunu borom yàlla subhanahu wa mu ne mi ngi waat ci sowug jant bi mi ngi waat ci guddi ak la muy dajale waaye mi ngi waat ci weer yi ba muy mat sëkk da jaar ay jaar-jaar la tarkabunna tabaqan an tabaq loolu mbokk mooy ni nga xam ne noonu la temps bi di changer bi iznillah noonu it lañu sunu boroom yàlla di waajale gannaaw ba ñu deeyee mu am fukki jaar-jaar yoo xam ne jullit war nay bàyyi xel loolu fu mën a toll jéem koo waajal ca la nga xamee ne mooy ay jëfam jaar-jaar yooyu nekk lu mag lool loo romb ba ca gannaaw gën koo mag jullit ñi daan ci jaar yéeféer yi daan ci jaar naafiq yi daan ci jaar ba baa muy yegg ca këru daluwaay ya imma muy aljanna wala muy sawara loolu mbokk jaar-jaar yi ci jaar-jaar yi allaaxira nga xam ne ci àdduna lay ami xutba biñ mujjoon a dajeeg yéen lépp ci loolu lañ ko jagleeloon ca mooy jaar-jaaru xabru bokk na loo ci mën a tënk xabru mooy fa doomu aadama di xaarante fa ñuy xaarante boo ko yóbboo sa bàyyi xamal ne yaa ngi ci gannaawam boo ko yóbboo sa doom yaa ngi ci gannaawam ñun ñépp fa la ñuy daje ku ne di xaar sa moroom léegi nag la nga fay nekke mooy la nga dun dund ci kaw suuf imma nga jaarul woon fa neex sa boroom yàlla defal la ko muy paxum sawara moo xam ne ca ngay tëdd di xaar àdduna tukki ba ilaa yumi diin wala jaar nga fu neexoon borom bi yàlla defal la ko jardin aljanna nga toog fa di xaar àdduna tukki mi ngi noonu yal yàlla defal ñu sunu bàmmeel di rawdatul janna mbokk gannaaw bi doomu aadama yi demee ba yàlla dogal àdduna war a jeex am na loo xam ni nii benn béjjën la bu yàlla subhanahu wa bind béjjën boobu la wax suur yaatu waayam ba moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf yàlla bind na benn malaaka bu ñu wax israfil jël na la nga xam ne mooy béjjén ba sex ko di xaar ana kañ la ko yàlla jox ndigal ngir mu ëf ko heure ba amee béjjén boobu mboolem ordre bu nekkoon ci asamaan ak suuf dana tasaaroo biddiw yaag jant yaag montagne yaag lépp mboolemi doomu aadama yi dañuy faatu gannaaw ba suñu borom dana ko joxaat ndigal mu daal di koy ëppaat fekk nit ak jinne malaaka ñépp faatu nañu su boobaa ca la doomu aadama yi di delloo waat ak seen ruux daal jóg jóg googu la ñuy tudd albaas mooy génne gi yàlla di génne doomu aadama yi ci biir suuf suñu borom yàlla mu ne bu ngeen ci sikk sàkka yéen seen cosaan bàyyi aadama suuf la woon doomu aadama bu deeyee day nekk suuf waaye suuf boobu ci la ko yàlla di dekkalaal yowmal qiyaama dekki boobu nga xam ne la suñu borom di wax ne xanaa ñi nga xam na ñoo nekk di lekk ak seen mbokk jullit ñi ragalul ñi bis tan leen ma sa dekkal ci bis boo xam ne bu màgg lay doon keroog bi nit ñi di taxaw di xaar kii di borom bi ndaa fa ni muy sunu boobu nga xam ne doomu aadama yi daan génn comme na leen seen ndey jure woon ni nga génn sa biiru yaay ngay génn sa bàmmeel yaramu neen amul lenn loo xam ne looy sol la bi bis boo xam ne boo ñëwee bu xet génn yaa ngi jàkkaarloog malaaka yi yaa ngi jàkkaarloog jinne yi yaa ngi jàkkaarloog lu yàlla mas a indi ci kaw suuf ci ay jaane ci gayndeek lu mu mën a doon bis bu màgg boo xam ne sunu borom nee na gone yi ndaw yi sax keroog dañuy bijaaw keroog la yàlla di dekkal jaam yi ci seen jëf yañ doon jëf ku nekk yaa ngi dekkee ci say jëf loolu moo tax bu doomu aadama yi dekkee ñuy dekkee Amérique Afrique Asie gannaaw loolu am na lu ñuy tuddee alxashr xashr boobu mooy sang bi yàlla di dajale doomu aadama yi sunu borom yàlla subhanahu wa ne mboolem ñi fi jëkkoon ak ñi fi mujj daañu leen dajale ci benn bis amul benn doomu aadama buy génn sa bàmmeel loolu yaa ngi fekk ñaari malaaka ñu ngi taxaw di la xaar kii mooy kay féete sa kanam di la jiite keneen kii mooy aji nekk seede ba yor dossier yi ñu jëm fan ñu jëm teew fa yàlla di dajale doomu aadama yi su ko defee mbokk jullit mbir bi nekkul man bu ma dee fan lañ ma suul ñu suul la Tamba ñu suul la Parcelles ak Amérique lépp a yem ndax foo mën a nekk yàlla danga la mas a génne foofu dajale la problème bi kay mooy buñ lay suul luñ lay suulaale ci ay jëf waaye du fan la suul wallaahi bokk na ñuy jiitu sawara ñañu suul biir makka bokk na ñuy jiitu sawara ñu ñu suul biir madina ci ay nafiq loolee nga bàyyi ci xel bu baax suñu borom dana dajale ay jaamam ci benn place ci bis boo xam ne yàggaay ba nekk na juróom fukk junni at miqdaaruhu xamsina alfa sana juróom fukk junni at doomu aadama yi bu ñu fa nekkee bu ñu xalaatee li ñu defoon ci àdduna dañuy jàpp ne saatu min nahaar la mooy benn heure lañ ci kaw suuf loolu mbokk di loo xam ne lu jara waajal la yonent bi alayhi salaam ne la yàlla dana wàcce jant bi mu tiim doomu aadama yi lu tolloog kilomètre doomu aadama yi ñaq ñee ña ngay xuus seen ñaq ba ñee ñaq ba yegg na ba ci ndigg ba ñee ñaq ba yegg na ba la nga xam ne mooy seeni tun seen catu kanam rek mooy feeñ ci loolu la ak rammu bi gu màgg di am di jóge ci sunu yonent muhammad alayhi salaatu wassalaam gannaaw ba ko aadama gàntale ak nuux ak ibrahim ak muusa ak isa ngeen mu ñëw ñaan yàlla mu daal di ramm ay jaamam ca la yàlla subhanahu wa taala di ràmm ay ñëw pour la ay jaamam doonte ne foofu it am na benn jaar-jaar bu rëy bu fay nar a am mooy doomu aadama yi yàlla dana leen nattoo benn mar bu tar ci jamono bi ñu dekkee sunu yonent alayhi salaatu wassalaam moo ko yonent yi ko jiitu woon yàlla dana leen may la nga xam ne mooy ay déeg ay déeg muy ay dex yoo xam ne dañuy woo ñeneen gëmoon ñu topp ko yonent bi alayhi salaam ne na la may xàmmee sama xet bi yowmal qiyaama mooy njàpp mañ doon jàpp mooy nekk identité ci ñoom mboolem fu ñu doon jàpp day weex kon képp koo xam ne nax nañ ko ba teqale ko ak julli te xam ngeen ne ku julliwul du jàpp ku mel noonu wallahi xam nañ ko bokk ci xeeti yowmal yonent bi alayhi salaam yowmal qiyaama na ngeen bàyyi xel loolu bu baax doonte ne yonent bi wax ko lu tiitlu nee na malaaka yi day daan xaaj mbooloo mu bëri delloo leen gannaaw ma ne ay yàlla ñii sama xeet lañ bokk waaye malaaka yi ne ma muhammad ñii xamoo liñ dem sa gannaaw mooy lañ fa bàyyi woon yépp dañ caa dellu gannaaw ma ñu ma ne leen kon nañ ma sori nañ ma sori loolu mbokk di lu jar a bàyyi xel léegi mu def lu ñuy tudde alxisaab mbokk xisaab boobu gëmal ni amul kenn ci ñun lu dul yàlla dana taxaw ak moom yowmal qiyaama amul kenn kuy intermédiaire seen diggante ba mu jàpp ne moom rek a tax bisub tey bi am moom la borom bi di wax ne fa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa koo xam ne ragal na bis bi muy taxaw ci kanamu boroomam mu xeex ak bakkanam ba tere ko lépp loo xam ne bànneex la bu ko yóbbu sawara ku mel noon day àjjana moo nar a rek ab wàccuwaayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ah, Abdullah ibn Omar nettali nee na yàlla dana woo ka nga xamee ni nii muy ab julit daañu koy jegeel daañu ne ko ay diw maa la xéewaloon maa la defaloon nangam waaw sama borom loolu lépp dëgg la mu ne waaye xam nga digaloon naa la nangam loolee defoo ko de xam nga woon naa la nangam te def nga ko ah loolu lay dëgg la sama borom mu ne waaye nag dama laa suturaaloon ci àdduna ba kenn xamu ko kon nag tey danaa la suturaal kenn du ko xam demal tabbi aljanna yal na yàlla suturaal ñu àdduna ak alaxira loolu kon mbokk mi wañe ne bàkkaar benn baaxute waaye ngan la waaye bul des bàkkaar bu la nit ñi xamee nit ñi xam ne ma sàmba day du julli nit ñi xam ne ma sàmba day dafay kart loole mbokk musiba mënu ko paase sunu borom yàlla ba keroogee danañu laaj mboole mi xéewal yim ñu defaloon summa la tusalunna yawma idin ani naim ana fan lañ def sunu ndaw fuñ def sunu dund luñ jëfe sunu xam-xam lu ñu jëfe ci sunu alal gannaaw ba danañu laaj farata yi mu gàlloon suñu loos lam ñuy jëkkalaat mooy julli farataaloon naa ci yenn waxtu julli juróom malaaka yi xool leen suñu xoolee julli yi julli ya baax suñu borom ne kon bàyyi leen yeneen jëf yi suñu xoolee julli yi julli ya baaxul sunu borom ne xool leen jëf yépp de yeneen ci bàyyi salaam ñu ne ku ñu xool say jëf mbugal la ana nag waajee ñu nax ne ko kaay bay samay tool del alal di ma jox julli teggil naa la ko perte na adduna ak allaaxira mbokk jullit nii la sunu borom yàlla subhanahu wa taala joxe ku nekk ay àqam gannaaw ba mu ne nag dem leen ngeen peese la nga xam ne mooy seeni jëf su ko defee malaaka yi ñëw di peese jëf yi borom bi ne fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya koo xam ne sa balance jëf yu baax diis na yaa ngi ci dund bu ñu gërëm muy aljanna keroog la doom di dajeeg yaay ay yaay ndax dooma may benn tuyaaba yaay wan ko gannaaw na ko doom sama bopp laa tal waaye keroog la yaay di jàkkaarloog doom na doom maa la doon nàmpal maa la ëmboon ndax dooma may benn tuyaaba mu ne ko yaay sama bopp laa tal noonu la jëkkër di wax jabaram noonu la jabar di wax jëkkëram noonu la baay di wax doomam ñaar ñi bokkoon ndey baay loolu la ñuy waxante sunu borom yàlla ne li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi ndax ku nekk ci ñoom keroog da am na la doy waaw ki nga yaakaar na yawmal qiyama boo ñëwee mooy taxaw daañu ne yàlla kii saas nguur la na tàbbi aljana xanaa amul ndey xanaa amul baay xanaa amul doom te sunu borom nee na yawma yafirru al-mar'u min axiihi wa saahibatihi wa baniihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi keroog nit dana daw frère am dana daw ndeyam ak baayam dana daw jabaram dana daw ay doomam su ko defee kon yaakaar ba ci kenn doomu lay des muy yàlla mi nga xam ne yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah keroog kenn du mënal boppam dara mbir yépp ci yàlla lay dekku lay dellu yàlla na fekkoon nga yaakaar sa borom bañ koo bokkaale dara mbokku étape boobu bu bu passé sunu borom yàlla subhanahu wa taala da nga gis ne bu ñuy àttee jaam yi bala ñu peser jëf yi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla dana àtte diggante jaam yi àq yi nga xam ne yoroloon nañ ko ba xattaa bàyyi ma ñaari xar yu doon bëkkante yàlla dana leen woo juge leen ka nga xam ne dafa tooñoon moroomam yàlla delloo tooñ nga ca moom babaa bàyyuma yi jeex babaa doomu aadama yi jeex moo taxoon mu ne ay yéen mbokk jullit yi ku yëg ne tooñ nga sa moroom ne dem léegi delloo ko ak xam ne dem noonu delloo ko ji la nga xam ne mooy ay jéggaloom ndax kat bis mi ngi ñëw dërëm amul dinar amul lan mooy am yowmal qiyaama mooy waa ji bu nee na ñëw na yowmal qiyaama indi julli yu baax koor yu baax waaye fekkoon na tooñ na jaami yàlla yi dañuy jël tuyaaba jooju séddale ko ña mu tooñoon amma bu dee ni tuyaaba di jeex na te ñam tooñoon jeexul ñu jël bàkkaar yi ñam tooñoon sëf ko ci kawam loola tax buñ ko pesalee zéro lay am daal di dem tabbi sawara yàlla yàlla mu sëñ ci loolu muy wala ñu war nañ bàyyi xel ñaar bàyyi xel suñu diggante ak suñu boroom ci lim ñu digal ak lim ñu tere waaye bàyyi xel diggante ak suñu moroom bañ caa tooñ kenn du doom du jabar du dëkkandoo du koy liggéeyal du kenn koo xam ne da ngaa moom ci kaw suuf mbokk gannaaw loolu nag la ñuy tuddee ah résultat yi génn xale yi jàng lañ gën a ragal mooy résultat yi tey lañ koy joxe su ko defee malaaka yi ñoo yor téere yi képp koo xam ne mbooloo mi taxaw nañu ñoo nañ fekk la nga taxaw ñu tagg la félicité la jox la nga nangoo sa téere sa joor ku mel noonu day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ah, sunu borom subhanahu wa taala nee na fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ku mel gis xisaab bu yomb la ko yàlla di xisaab mu daw jëm ca la nga xam ne mooy ay mbokkam naan leen xool leen aw iqra'u kitaabiya man de réussir naa àjjana laa jëm gis ngeen man de réussir naa àjjana laa jëm amma ña nga xam ne dañoo jaarul fa neex yàlla wa amma man utiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira amma ki nga xam ne malaaka yi ko fekk mu taxaw ñu dox ko gannaaw jël loxo càmmoñ bi wi ñaar ba ci gannaaw na ko téyel sa su ko ubbee dana ne yaa laytanii lam uuta kitaabiya ay waay aka neexoon mën a jot téere bi ndax man sawara laa jëm ay waay aka neexoon yàlla ba mara yem ma nekkoon poussière ba ñu nekki mbokk loolu mooy ñaari groupe yu mag ya dana fa am benn groupe intermédiaire boo xam ne xale yi jàng ñoo ko xam heure bu examen amee dañ naan ñi dañoo at ñu d'office ñu ne ñi dañ leen par oral ñooñu la ñuy tuddee waa araaf waa araaf mooy ñan mooy ñi nga xam ne seen jëf yu baax ak seen jëf yu bon daa yeme yàlla day jël waa àjjana yóbbu aljanna jël waa sawara yóbbu sawara moom mu bàyyi leen ci benn pont di leen seetaan foofu doonte ne lañ fay nekk dana gudd bu leen yàlla na too ci seen tiit ga bañ gannaaw ba yàlla doogu leen baaxe ci yërmaandeem tàbbal leen aljanna ndax yàlla boroomi mbugal la boroomi yërmaande la waaye nee na yërmaandeem moo ëpp doole mbugalam loolu moo tax ba ñoom def nañu loo xam ne nii matul place aljanna waaye def nañ loo xam ne nii da ngay gis ne yeeyu ñu dugg sawara yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam daañu leen di tàbbal la nga xam ne mooy aljanna mbokk étape yu mag yi mooy la nga xam ne moo ñuy xaar nañu fexe ba su suñu kenn la kattan ñaan yàlla subhanahu wa taala fuñ fi mën a jaar ñu rombe ko ak ngërëmal yàlla yàlla mi yombal lu mu yombal yàlla yàlla yombalal ñu loolu yàlla yàlla defal ñu la nga xamee ne ni mooy mujj gu rafet musal ñu ci mbugalum bàmmeel yombalal ñu la nga xam ne mooy jaar jaaru yowmal qiyaama alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'taa bi jahannama yawma'izin lahaa sab'uuna alfa zimaam ma'a kulli zimaamin sab'uuna alfa malak yujirruunahaa qaala ta'aalaa izaa ra'awhum min makaanin ba'iidin sami'uu lahaa taghayyuzan wa zafiiraa summa siraat ibaadallah wa siraat jisrun mamduudun alaa jahannam liya'bura almu'minuuna alayhi ilaa aljanna قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وهم الكفار والمنافقون وبعض الأصاة وبعض الأصاة المؤمنون قال تعالى فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال صلى الله عليه وسلم fa wallazi nafsi bi yadihi la ahaduhum ahda bi manzilihi fi ljannati minhu bi manzilihi kaana fi dunya rawahu buxaari inna allazina aamanu wa amilu saalihaat lahum jannaatun tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha abada radiya allahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabba ay yéen mbokk jullit étape yooyu nga xam ne dañ cee jaar sunu borom dajale na ay jaamam attale na seen diggante pesé na jëf jox nañ leen seen i résultat gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla gën a jox ordre malaaka yi ne dem leen jële di ma sawara suñu demee di jili sawara nee sawara am na juróom-ñaar fukki junni ci ay jàppukaay jàppukaay bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ci jàpp te mënuñu ko yëkkati dañ koy diri loolu boo ko xoolee sa machine day nekk quatre milliards neuf cent millions de malaaka ñoom ñooy indi sawara yowmal qiyaama sawara nekk di bëmb nekk di yuuxu nekk jàkkaarloo noonu yi nga xam ne ñoom la nara reere tey te mooy noonu yàlla yi loolee mbokk da ngay gis doon na mbir moo xam ne mbir mu yéema lool sunu borom yàlla daal di indi la nga xame ni nii mooy étape bi mujj avant doomu aadama di dem fa mu jëm mooy li ñuy tudde siraat siraat boobu yàlla da koy teg ci kaw sawara daa di ne ay yéen jaam yi ay ca dem leen ngeen jéggi sawara sunu borom yàlla subhanahu wa ni amul kenn ci yéen lu dul dana jaar kaw siraat su ko defee ña nga xam ne ñooy say say sa ba ñuy teg seen tànk rek ñuy pëtëx jëm ci biir sawara sawara moom nga xam ne xóotaay ba yonent bi alei salaam nee na juróom ñaar fukki ah at la ca na nga xam ne noonu la su ko defee loolu ñuy cay wadd di ca wadd bokk nañu cay wadd mboole seen mooy yéeféer yi bokk nañu cay wadd mooy waaye bokk nañu cay wadd mooy lenn ci jur yi defoon bàkkaar yu mag yu leen yàlla baalu ñoom ñëpp ñu jóoru ca biir am amma ña gëmoon yàlla te rafetal aw jaareem yàlla musal leen ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne siraat bi yàlla teg ci àdduna muy siraat al mustaqim bi jullit ñi di ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar ihdina siraat al mustaqim ñi nga xam ne tegawoon nañ ci siraat boobu jaar ci na neex yàlla noonu la ñuy jaar ci siraat bale am na ñu cay jaar comme ngelaw duñ yëg sax jaar nañ ca yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñu wala yonente bi alei salam dane comme xef a wala comme melax gannaaw ba ña cay jaar comme ngelaw ñii jaar comme fas am na ci ñoo xam ne ci jullit ñi sàggal nañ ci ay bàkkaar ba bu ñuy jaar ci siraat dañuy darngu ba bàyyi ñuy jéggi siraat doonte ne am na ay riwaaya yoo xam ne nee na doxu ñetti junniy at la loolu nga bëgg koo darngu jëm aljanna xam ngeen ne musiba mënul paase loolu yal na yàlla musal ñi ci loolu mbokku loolu bu dee ne dem na ba doomu aadama yi daal di cay jàll sunu borom yàlla subhanahu wa ci mbaaxam ba tey dana jël ay yonentam ak i malaakaam ak leen nit ñu baax ñu ñaan sant leen ñu ñaan ko bu ko defee ñu génne ña nga xam ne ñooy defatu bakkaar yu mag yenn ci biir sawara malaaka yi génne leen bu leen malaaka yi génne day fekk sawara lakk nga leen ba dara desul lu dul place yi ñu doon sujuute moom lañu leen doon xàmmee daal di leen di génne képp koo xam ne dox nañ digganteem ak julli perte na adduna ak alaxira loolu mbokk ñuy dem bu ko defee ñan ñuy def sawara mooy ñi nga xam ne ñoo fay nekk xaalidina fiha abada mu yéefér ya bokkaalekat ya ak naafiq ya amma lan mooy étape bu mujj ca jullit ña mooy la nga xam ne mooy aljanna ajjana boobu nga xam ne sunu borom nee na koo xam ne mucc nga sawara tabbe ajjana yow day texe nga xam leen ne dund àdduna dund gu ndaw la loolu muy wane ne góorgóorlu leen ba àdduna bañ leen a nax ba xañ leen la nga xam ne mooy aljanna loolu itamit sunu borom yàlla subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi bu ñuy dem aljanna maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom ku nekk yàlla dana la xamal sa kër ci aljanna ni nga gën a xamee sa këru àdduna tey waa Sandaga bu ñuy tasaaroo wàcc ñee nga jëm Kër Masar ñee nga jëm Tëngéej ñee nga jëm Parcelles ku nekk xam nga fa sa kër nekk waa àjjana it naka noonu bu mu duggee àjjana ku ne xam na sa fa sa kër nekk mbokk àjjana nekk na téeméeri daraja daraja bu nekk mi ngi toll ne diggante asamaan ak suuf ba gën mooy firdaws la ko féete kaw mooy arshu rahman su boobaa xam ne mooy asamaan yi aljanna mooy arshu rahman bi dugal doomu aadama yi delloo leen seen bay aadama ñu nekk si tuuna zira lu ëpp trente mètres yàlla def ñoom taar boo xam ne nii yàlla moo ko xam daa di leen laabal waa aljanna du ñu demee ci douche du ñu saw du ñandu du gis ay réegal waa aljanna amul lenn luy salte lu génn ci ñoom seen lekk gaag naam ya dafay nekk giix yoo xam ne ak ñàkk boo xam ne moo gën a neex mboole ñu parfum yi nekk ci kaw suuf yàlla def fa xéewal yu mag yu kenn munta lim waaye jàpp ci la xam ne mooy ñeenti xéewal yu mag yi mbokk waa aljanna ñooy bokk benn xol góor ak jigéen ku nekk ni nga bëgg sa bopp ngay bëgg sa moroom benn xol la ñuy bokk nazaxna ma fi sudurihim min xillin ixwaanan ala sururin mutaqaabilin amul benn problème gars yi loolu rek aljanna la gannaaw loolu sunu borom yàlla dana leen saxal kenn du feebar kenn du dee un million d'années déedéet un milliard d'années déedéet kan abadan abadan faw kenn du feebar kenn du dee kenn du màgget feebar amul màgget amul dee amul bokk na ñetteelu mbir bi keroog waa aljanna dañuy gis seen boroom subhanahu taala yàlla mi ñuy bind moom ñu ñu bëgg ko lool mi nga xam ne moo bind taaru keroog la ñu yàlla subhanahu wa taala ji woon boppam taar boo xamee ni dana fàttala waa aljana waa aljanna waaye mu bokk it ba nga xam ne mbokk moo ci gën a neex te gën caa màgg mooy sunu borom yàlla dana woo keroog waa aljanna ndax waa aljanna gërëm ngeen ñu ne ko ay sunu borom lu ñu def ko duñ gërëm may nañu loo mayul kenn ci say jaam taaral nga suñuy jëmm rafetal nga suñu wàccuwaay mu ne tey dama leen a bëggoon a dolli ay sunu borom la ñuy dolli mu ne bis na ki tey kontaan naa ci yéen lu leen neex def leen abadan faw dootuma leen mere mukk gaa yi loolu mooy bànneex boo xam ne amul fu mu yem ndax àjjana kat bu meloon na àdduna da ngay xiwlu waaye di xalaat ah ndax lii baax na ndax lii dagan na ndax lii nangam am na aljanna sunu borom mu ne lu leen neex def leen lu leen neex wax leen lu ngeen def gërëm naa ko lu ngeen wax gërëm naa ko xaalidina fiiha abada moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax daañu am na yi daluwaay ba faw dex yaa ngay daw ci seen biir ñu sax fa ba faw radiyallahu anhum wa radu anhu ñu mel nii day yàlla gërëm na leen ñoom it dañ gërëm ci seen boroom amul lenn lu ñuy jàmbat lépp xéewal la lépp jàmm la sunu boroom yàlla nañ ne lii day maa ngi ko denc ñeel kan ñi nga xam ne dañ maa ragal zalika liman rab rabba ñuy ragal yàlla sunu borom yàlla firi na ko feneen mooy ña nga xam ne mooy al su ko defee mbokk julit xam leen ne loo gis am na yoon yoonu aljanna mooy lan mooy góorgóorlu jéem a jàng sunu diine jéem a xool lan na yàlla digle nga def ko lan la yàlla tere nga bàyyi ko te yaakaar yërmaande yàlla ngan la waay wékki leen seen xol yi ngeen yaakaar ci jaami yàlla yi jaami yàlla yi mënuñu leen a jëriñ àdduna mënuñu leen a jëriñ allaaxira booy yaakaar yaakaaral yàlla booy sukkandiku sukkandikul ci yàlla yàlla ba mu lay bind benn sëriñ dimbaliwu ko ba muy tabax aljanna benn sëriñ sëriñ joxu ko brique ba muy defar sawara benn sëriñ joxu ko matt lépp ci loxo yàlla la nekk delloo leen seen xol yàlla delloo seen kanam yàlla delloo seeni jëf yàlla lii de bu ngeen ko defee yàlla da nga leen jàppale adduna ak alaxira yal na yàlla jàppale ñu adduna ak alaxira yal na yàlla rafetal suñu mucc adduna yal na yàlla musal ñu ci mbëgalu bàmmeel yal na yàlla yombal suñu xisaab yombal